TV lii di beneen scandale ginnaaw bi nga xamante ne kii dafa def ay menaces de mort ak arme blanche kii nga xamante ne suspect bi la waroon déglu ji foofu ca enquêteurs yi moom nag dafa def benn faux bond ñi nga xamante ne mooy enquêteurs yi ba noppi daal di volatilisé wu. ci biir nature bi kenn gisu ko mi ngi xewee foofu ci village bu ñu tuddee Rouf nekk ci commune bi nga xamante ne mooy commune Malekounda kii di vigile bii nga xamante ne moo nekk ca maternité boobu moom moo def objet li nga xamante ne mooy tentative d' agression ci guddi bii ñu génn muy mardi ak mercredi 17 octobre muy benn suspect boo xamante ni Abdoulaye Ka ñu xam ko ci ay fait yu mel nii victime am boobu nga xamanteni def na objet ben plainte de menace de mort bi nga xamanteni déposé nako ci brigade de gendarmerie bi nek fofu ci Nianing pour éviter li nga xamanteni moy mooy galère bi nga xamanteni justice dina ko def mu jël ben prise de clé bo xamanteni ni ci biir ay tolam la ko fekk ginnaaw loolu nag ki nga xamante ni mooy Jacinthe Bakhoum bu mu échappé bel et bien ci benn cause mooy guddi mardi bi nga xamante ni mooy 16 jëm ci mercredi 17 octobre kii di vigile maternité bi nekk ci village Rouf boobu moo évité de justesse li nga xamante ni moy get apane bi nga xamanteni ni nako coûter la vie batay tey suñu sukkandikoo ci guddi bi vers minuit bi mu yégee si domicile pour dem fofu nga xamanteni à quelques kilomètres muy poste de santé Bobu nga xamanteni ni fa la nekk waroon fa passer fa la jàkkaaroog ñaari individu yo xamanteni dañuy yor ben pénombre exactement ci endroit bobu le trouvé wu forage bu nek ci village bi bi nga xamanteni amone na pressé pour rejoindre lieu de travail am yoyu si la jël ben résolution pour interpeller ki nga xamanteni moy nit ñoo nga xamanteni dañuy dañu éveillé woon ci ñom muy ay heure tardive bo xamanteni gis nañ len ci endroit bobu ginnaaw loolu nag ci la hésité bi mu demandé li nga xamante ni pour ñu décliner ñoom ñooñu lan mooy seen identité ñoom ñooy kan individu yi si la ñu bañ répondre ko ginnaaw loolu nag premier temps li ñu njëkk def maanaam mooy lan demande que à tour que moom aussi lan lay def fofu ci endroit bi à pareille heure te xamuñu woon moom mooy gardien bi ba tey suñu ko ci ki nga xamanteni moy mooy te reconnaître na voix wu kenn ci ñom nga xamanteni xamante continuer na yonam di dem yonam amul ben peine tourner wul ben yoon kanamam ginnaw lolu ki ñi nommé ki nga xamanteni moy Abdoulaye Kassile si la entreprendre poursuivre leen si biir loolu nag la gis ben nourrissant dessin bo xamanteni surprendre na ki nga xamanteni moy vigile bi par ginnaw la ko bettee ginnaaw loolu nag si la jël ben projet bu mu def pour aboutir ko car ki nga xamanteni moy baxum kan mako guidé won ben flair bo xamanteni réflexe la pour mu retourné wu ba noppi daal di daanu ci li nga xamante ni mooy kii nga xamante ni moo ko naroon agressé ba pare menacé ko par arme blanche balaa mu koy attaqué ba tey suñu sukkandikoo lan la ñu bëggoon mooy assaillants yi bi ñu répondre sans détour que dañu amoon envie pour régler benn compte boo xamante am nañ ko ak ki nga xamante ni mooy vigile bi Abdoulaye Amou ki nga xamante ni moom aussi bi mu waxee lan la xamal ni daal bi ñu xoolee ni que démasqué nañu kii di suspect bi pendant bi mu jëlee tangente maanaam daw dem yonam le lendemain Hyacinthe dafa dem foofa ci brigade de proximité bi nek ñaning pour déposer ben plainte ci plainte bobu nak la am ben convocation bo xamanteni destiné nañ ko ki nga xamanteni mom lañu suspecté won ñu remettre ko ginnaw lool nak bi mu xamee ni que les carottes étaient cuites ki di Abdoulaye Ka dafa solliciter sans tarder ben voisinage am boo xamante ni moom la dëkkaloon pour ben règlement de à l'amiable pour ñu régler ko à l'amiable mais ainsi après bi ñu du bari ñëwé intervenir ci vigile bi ki nga xamanteni ni vigile bi dafa bañ retirer li nga xamanteni moy mooy plaintam ci bir loolu nak sans réfléchir le plaignante bi dem campé wuji ci si position bàyyi plaintam fofu ba nopi daal di moom wuy ji aljuma bi ñu génn enquêteur yi mais li desoon manam moy ki nga xamanteni mom lañu constater moy accusé bi mom ñewul fofu pour wuy enquêteur yi sous prétexte dafa nekkoon ci à la recherche de ses vaches manam da doon wër ay nagam ginnaw loolu nak à la place ki di Abdoulaye Ka muy euh, nijaay bi nga xamanteni moy mooy ki nga xamanteni moy sa dernier mom biñ ko demee la ko jox ko convocation bi dafa xamné ne ni que accusé bi en majeur amna na à peu amna jabar manam il est marié ba paré polygame la ñaari jabar lam ci situation bobu nak motax plaignant bi déposé ben deuxième plainte pour comme contraindre li nga xamanténi moy suspect bi nga xamanténi ne euh, accusé bi présenté wul foofu ca enquêteurs yi ginnaw suñu passé lolu ki di Abdoulaye Ka amoon na déjà ay problème yu mel noonu ak ben plaignant bo xamanteni daf ko divagation woon jëm ci ay nak ak ay bétail yo xamanteni ci biir tolam la duggoon ci problème bobu nak la incendie bi volontaire jógee ginnaw lolu si la atterrir ci brigade nga xamanteni mo nek fofu ci Mbour au finish ki nga xamanteni moy accusé bi dafa fayoon ben somme bo xamanteni ni somme forfaitaire la ki nga xamanteni mom la bëggoon agressé ak arme blanche je crois que cette fois-ci qui di plaignant bi suñ ko Madame, maanaam dafa déterminé pour souhaiter que Abdoulaye Ka bañ a nekk koo xamante la poursuivre pour acte directeur la en tout cas daal ñu mën a jàpp bu mu ko nga maternité village